nee ñu sëy ba doxoon seen digganteeg APR ci boppam mooy tas fa yàllaaxu yéen kaay bi dee média bi naan maan bu président Macky Sall def erreur de bés bu defee erreur ci kamu war a tabb ku koy wuutu làmbaay na ñaaw ci biir bennoo wala le peuple quotidien naan kon xeexoo bi biir bennoo bokk yaakaar wala it xeexoo bi ci biir APR bu doonub drapeau la Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñoo ko téye le témoin kaay naan kon xeex bi yàgg na de xëccoo ndakaaru moo leen andi ci lii le peuple naan kon waaye nag ay règlement de compte la yoo xam ne na ngay tas biir parti bi ñu yekkante keteme ak ci defante yu ñaaw la président ma ki sal woote woon muy bennoo di unité ñu daal di koy tàbbal géej ñuy xeexoo mani la ci biir permanence bu biir APR di teggi nag woor may président ma ki Sall te xam nga ñaar ñii gannaaw local yi waaye tam gannaaw législative yi ñu rukk leen ba nu nooy ca lan ñàkkee bépp légitimité fii ci ndakaaru bu ndakaaru tàngee mani la kenn du leen dégg bu seddee nag ñu génn di raaya la ko nooyal yéen bi naan maan xam nga bu dee dañ ko war a jëmale nag ci opposition bi seen wujj waaye nekk ci biir parti di xeexoo ci biir boobule parti du dëgg le mandat naan maa ñu ñu bokkal parti sax ñu leen di yedd nag fa ndaw mouvement bu refondation bu valeur yi te Mamadou Gueye jiite leen day ma ngi leen di yedd naan leen élection locale yi bu ñu ko ñàkkee yéen a yéen a nekk biir ndakaaru di xiiroo ak di ŋaayoo ñu ne déeta waaye nag ngeen dem seen nit ba ci kanamay taskatu xibaar di fa xeexoo di wuññi sutura président Macky Sall di xal waa APR dem ba ci siège ba nag wane dëgg-dëgg yéen a bokk parti waaye mbëggeel daal taxul seen diggante di jëfee nag ni ki président Macky Sall moom nekkatul président joxatu leen ko benn cër joxatu leen ko benn warma du naan dëgg-dëgg lii lan la direct news naan mooy li ngeen gis rek te président Macky Sall neexut a wax waaye dafa mel ni gisagul dara direct naan man xam nga bu ñu demee ba président Macky Sall jël projet de loi teg ko ne nag mën na seer assemblée nationale bi saa bu ko soobee ay député yoo xam ne lu leen Sall def woon ñu def ko ne ñoom du ñu toog ci garab ba pare di ko gor maanaam daal di dëkk président Macky Sall di koy défier ñoom ñëpp yëpp nag député bu mouvance bi ànd ne projet de loi bii duñu ko wote te du jàll yéene kaay bi naan maan li président Macky sàll bu ci jëlul njàngat xam ña koy wan moom président Macky Sall ne ko ci politique ku ne sa moo la tax a nag sa bopp ci boppam ngay défendre Sall mi nga xam ne nag war naa tabb ki koy wuutu war naa xool bu baax a baax ci la jëf réew mi quotidien naan man président Macky Sall day mi ngi ñam nguur nag buy jeex la muy saf ndax am na ñoo xam ne nag fi mu ne sàll bu tabee ba nuppi ñoom ñoo koy abal kay 24 heures yéene kaay naan ko ndax ka muy tabb dana am Walf Quotidien naan kon ay wiy jeex a metti nguur kuy jeex a metti ñamu àndaloon démb moom sàll ba muy neex tey ña ngi koy jori xeer gaa yaa ngay taw nag bato bu suux ba ñuy xeexoo seen biir ñoom responsable bennoo yi docteur Abdou Khadir Sanogo ci yéen kaay bi mel ni ku naan koon opposition lobs naan maan maa mën kaay ñaari téeméer ci doomu aadama déglu nañ leen rapport ba moom ñeenti téeméer ci kilogramme la lépp ngi ci bureau procureur ku ci nekk ñu tudd la ca xool nan sax am am la nga am ca banque yaak ca notaire ya diggante daag yeeg fournisseurs yi am na lu cay lëndëm yéene kaay bi naan maan am na ñoo xam ne sàcc nañu am na ñoo xam ne moom dañoo sàcc ba pare de faux et usage de faux léefo naan maan booba ba ca paste fa ngay nooy biram su lay joo bàyyi nañ ko el maali tàbbiwul kaso libération naan maan kaso gi ndaw yi nekk moo raw yëpp l'évidence yéene kaay kon ñoo yey di suñu géej gi dañ ko jaay ba mu jeex xale yi amatuñu yaakaar amatuñu wéerukaay ci réew mi ñu dem nag jëndi perkaal xaar seen faatu libération naan maan ñu jóge Tunisie moom nee ñu la fa dund daanaka jaxannama moo ko tane docteur Annette Seck ci 24 heures ne ñeenti téeméer ci doomu Sénégal ñu ngi ci centre yi ca Maroc ñaari téeméer ak fanweer ak benn ñibbisi nañ ci réew mi waaye seen yaram ñàkk na ndox ñàkk ndox goo xam ni maar day taali le naan kon booba Aliou Sow dekkil na école normale William Ponty le témoin naan kon fii ci réew mi toll ci juróom-ñaar fukki junni ci xale amuñu baccalauréat ren ji ak lu mën a mbokk ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm